ci commune bu Dalangaabu amal nañu lu jëm ci lancement officiel bu FERA nekk nag fond d'entretien routier autonome ngir nag lu jëm ci wàllu ko cet-cetal goo xam ne jëm na ci wàllu ko yoon yi Cheikh ngoom di premier adjoint au maire bu commune bu Dalangaabu dañu ñëwoon euh, doon waxtaan def lancement officiel FERA muy FERA euh, mu ñu ngi koy waxee fond d'entretien routier autonome ñu amoon benn convention boo xam ne daf ko signe woon ak la commune de Dalangaabu depuis le premier avril mu concerné nag euh, nettoyage boo xam ne day nekk au niveau des routes surtout sur la route nationale dëkk yi nga xam ne te lii dafa jaar ci biir dëkk bi commune yi nga xam ne tali dafa jaar ci dëkk bi ñu jëloon leen nag doon war koy nettoyer ñu bokk ci loolu ñu woote fi def euh, lancement officiel bi lu jëm nag ci wàllu ko liggéey bu am solo boobee nga xam ne rek fas yéene nañu koo amal ngir yembal lu jëm ci fànn googee ñu daal di koy séddale ci ñaari pàcc. répartir affaire bi nag en en deux ñu tuddee ko zone une ak zone de parce que euh, boo xoolee structure démographique commune bi dafa am dëkk yoo xam ne dafa xaw a sorente ñu xool dëkk yi nga xam ne dañu xaw a gën a jegente ñu boole leen zone yeneen dëkk yi gën a jegente aussi ñu boole leen zone donc zone bi mooy Dalla Fentel Daaru Xafoor jëm côté bi zone 2 bi mooy bi jële ngaabu dàgga duy sangu ba saate ah, zone bu nekk nag am na benn superviseur bu fa bu fa nekk zone bu nekk day am benn superviseur bu fa nekk zone une moo Modou Diouf mooy superviseur bi zone de Ibra euh, Ibra Diouf moom mooy superviseur bi. nombre bi c'est au nombre de 48. ngir nag loolee gën a mën a jàpp ni loolee tax na nag jëbbal leen nag ay jumtukaay di ay matériel yu am solo yoo xam ne rek dina mën a tax ñu amal seen ak liggéey ci ni mu waree. voilà bi ñëwee tamit jox na leen ay jumtukaay parce que kuy jox kuy sant nit liggéey da nga koy jox ay jumtukaay jox nañ leen ay pelle râteau brouette brosse euh, gant dàll ak ak euh, aussi tenue yi nga xam ne dañu koy muy ay Lacoste ak ay. ay ay ay ay gilet yoo xam ne dañ leen ko jox pour ñu koy ñu koy utiliser. loolu daal bokk na ci matériel yi nga xam ne moom lañ leen fi jox tey ci pour ñu tàmbali seen liggéey yaakaar naa ñoom tamit ci biir groupe yi waxtaan nañ ba déggoo ba jàpp seen jour parce que dañ bëgg liggéey bi ku ci nekk 5 heures de def ñoom jàpp nañ seen ay horaire chaque jour c'est de 8 ñoom waxtaan nañu ak ñoom ba déterminer loolu ba ñu wu ci yaakaar naa donc loolu euh, dinañ ko def te ñi koy def ñëpp ñi fi nekk ñëpp tamit dañu ñëw pour servir seen dëkk pour service parce que ku nangu bàyyi la nga def ñëw fii di jàpp di set di fexee lu setal sa dëkk ko yaakaar naa servir sa dëkk mënu koo passé donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ci acte boobu noonu ñoom sax ne jamono ji noppi nañu ngir loolee ñu daal di koy amal yoo xam ne am nañ ci contentement bu bu rëy parce que lii suñu dañ koo jàppe comme suñu yëf quoi ñun ñoo ko moom te ñun jàppal yaakaar naa ne kenn ku ci nekk itam da jàpp ne mbir mi sa mbir la kenn ku ci nekk ni nga jàpp ne yëf yi sa yëf la noonu noonu nga jàppe liggéey bi kon ñu ngi leen di sant bu baax ci leen gërëm. mu nekk nag déggoo gu am solo goo xam ne boobaak léegi dox na ci diggante commune bu Dalangaabu ak waa FERA nekk fonds d'entretien routier otonom ngir nag lépp loo xam ne rek jëm na ci wàll ko cet-cetal ci commune yi nga xam ne tali def cee jaar waaye tamit ngir set-setal mbedd yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee file loolu nag tax commune bu Dalangaabu fas yéene cee bay waar wu am solo